Serigne Mor ñu ngi lay nuyu di nuyu Tamsir moom petit frère Ansou ñu ngi nuyu waa Thiès euh, monsieur le premier ministre damay ñaan ci nuyoo bi euh, ma beral ci loxo ma benn kilifa boo xam ne di quand même vous comprendrez je puisse avoir un faible pour lui monsieur le ministre Augustin di li may wax xëy na dinaa wax lu jóge ci suma xol bu mu metti kenn nag su ma xol la jógee lu ma dund la fii Thiès ndax doonuma le le premier militant du du président de la République à Thiès j'ai eu ma carte de membre signée par les mains du président de la République datée du 31 janvier 1900 euh, 2011 kon nag gan laa ci bu ñuy xool monsieur le ministre gan laa ci dëgg la waaye am na lu tuuti loo xam ne dund naa ko ci dund naa ko ci parce que euh, dama considéré woon sama bopp comme un militant discipliné boo xam dafa jàpp ne parti boo ci nekkee pour nga liggéey ko dafa nga war a am sa agenda personnel individuel d'animation et de mobilisation des des, des militants ci loolu la ñu wéyoon di doxal lu ñuy wax euh, vacances républicaines chaque cours de vac euh, grande vacances bu jotee ñu dajale gone yi gone yi dëkk bi ci école primaire yi ñu wër ak secondaire dajale leen ba ñu mat ay cinq cent élèves ñu jagleel leen cours de vacances yoo xam ne day tax du ñu taxawaalu ji bu loolu paree ñu jox leen ay euh, neexal yoo xam ne dañu ma tàmbalee seen année scolaire chaque année defoon nañ ko def itam lu ñuy wax ndogu républicain pour permettre responsable parti bi ñuy dajaloo chaque année ñu koy def responsable yi fii xam nañ li may wax dëgg la du lu ñu sos waaye wëyul lu tax woyul monsieur le premier ministre parce que le problème de Thiès c'est pas un problème de poste nit ñi yàllaa leen yor Macky Sall yoru problème au poste problème de générosité la monsieur le premier ministre les responsables de Thiès ne sont pas généreux j'ai commencé par dire am na ñoo xam génne naa leen parce que monsieur le ministre Augustin Tine génne naa ko ci par respect à ce à son engagement par respect à tout ce qu'il a fait pour le parti et pour le président de la République ñëw na jagle na def na lépp monsieur monsieur l'ancien DG de la Poste Siré Dia on n'est pas tout le temps d'accord sur la philosophie qu'on applique c'est quelqu'un qui a servi Thiès et les responsables et les militants de Thiès problème de Thiès monsieur le Premier ministre c'est un problème de manque de générosité des responsables nañu yaatal da ngay organiser dara yëgal ko responsable yëpp kenn du fa teg tànkam te nee nañ président de la république lañ gëm fii Thiès noonu lay def noonu la mel organiser nañu fi ba tàyyi li may wax ñoom ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko da ngay organiser ñu ñëw te da ngay sa daal lakk sa carburant dem ku ci nekk démarché leen pour ñëw teewal président de la république fa teew nous avons organisé dernièrement kenn ñëwul nous avons organisé dernièrement au mois de mai un grand rassemblement pour pour pour pour magnifier suñu do benn dëkkandoo suñu benn kilifa ci suñu tarixa woo ci responsable yëpp ku ci nekk dañu sol suñu daal dem jox la enveloppe soxla ñu seen xaalis parce que matale woon nañu kenn ñëwul amul kenn ku ñëw kenn moo fa yónnee responsable am la yónnee muy Mimi Touré amul keneen ku fa ñëw c'était au mois de mai kon li ñuy wax problème de générosité nit dina nañu yaatu nañu yaatal kenn yoru fi wërsëgu kenn du affaire poste du affaire nomination loolu la ñu bëggoon wax dëgg yàlla monsieur le premier ministre wax ko parce que loolu moo tax tey jii des responsables tey jii gisatuñu seen bopp ci biir APR lan la ñuy def dañuy dem wuti seen ay mouvement mouvement bi ñu teg ñun tax na ñun tey jii nee nañu responsable yi attanuñ ñu moo tax on manque il manque de générosité parce que dañu nangu ne attanuñu ñu ñun beru nañu wut suñu mouvement teg ko pour jàppale président de la république fu ngeen dégg action républicaine pour la citoyenneté l'humanisme et l'équité mu ñuy wax ARCH Lamine Aïssa Fall moom moo ko taxawal pour jàppale président de la république pas pour jàppale ay responsable yi nga xamante ni loolu liggéey ñu jël ko teg seen loxo yóbbul ko président de la république mu ne leen ñooñu gongo responsable yi nekk à la base nëbbatu daal di du ñu ko nangu tey ñu ko nangu ëllëg c'est fini ça jeex na amatul fii amatul feneen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa